nuyu nañ leen jaajëfal leen mbokk yi nga xam ne yéen a ñuy seetaan ci IYAT yi ñu dalalaat leen suñu jàngatu tey bii dañu koy door rek li nga xamante ne si ne moom di dialogue bi nga xam ne ñi ngi koy wax ci diggante kii di président la république Macky Sall ak ñi nga xamante ne si ne ñoom ñoo di opposition bi loolu nag nekk loo xamante ne si ne mën nañoo wax ne bokk na ci actualité yi ci jamono jii waaye itam nekk na loo xamante ne si ne. ñu bëree bëri ci sénégalais yi ñu ngi laaj boppi la dialogue ci yan anam la mën a amee mais itam yan décision moo ci mën a tukkee waaye itam yan changement la mën a jural lii di euh, démocratie bu Sénégal waaye itam ak stabilité réew mi loolu nag nekk loo xamante ne si ci lañ bëgg ñëw développé ci lu yaatoo yaatu balaa boobu nag ñu leen wax na ngeen abonné képp koo xamante ni it abonné goo ñu ngi lay invité ci IYAT TV nga abonné li ñu koy dooree nag moom moo di dialogue bi nga xamante ne si ne mi ngi dox ci diggante kii di président Ousmane kii di président Ousmane Sonko mën naa ne ak président Macky Sall bu ñu waxee dialogue mën nañoo wax ne ci jamono ji ñoom ñaar ñoom ñoo war a toog ci euh, benn taabul daal di waxtaanee li nga xamante ne si ne moom mooy réewum Sénégal mais itam ak jàmm dellu siwaat ci réew mi mais yooyu ci yenn anam la mën a amee ginnaaw loolu nag gis nañ ñoo xamante ne si ne. ñi ngi partagé di wax ne kat ki nga xamante ne si ne moom moo di Khalifa Ababacar Sall ak ñii di waa PDS Euh, ñu mën a wax ne ñi nga xam si ne ñoo di waa wallu Sénégal ak ñi nga xamante si ñoo di waa taxawu Dakar bu euh, Khalifa Babacar Sall ñoom kat pare nañ pour participer ci li nga xamante ni si moom moo di dialogue bi nga xamante ne kii di président Macky Sall daal dina koy woote waaye itam mu daal di wax ne waxtaan wi euh, bu guddee ba gudd dañ koy amal ci lu tolloog ab semaine kat ba dëppoo ci li nga xamante ne seen moo di ay kàddu ginnaaw ba nag ku nekk xam na ne li nga xamante ne seen moo jur coow lépp ñi nga xamante ne ñoo di taxawu dakaar bu Khalifa Ababacar Sall ñoom dañoo bokkoon ci benn force boo xamante ne si ne dañ koy woowee Eh, F24 bi nga xamante ne si ne daal nañ koy taxawaloon ci jamono yi ñu jàll waaye itam opposition boobu bépp bokkoon ci mën nañ cee jël ko ci mel ne li nga xam si ne moo di parti Bouga Bougane Gueye di eh, gëm sa bopp waaye itam ak ñoom Ousmane Sonko Pastef naka noonu tamit taxawu Dakar bu Khalifa Ababacar Sall ñoom ñëpp bokkoon ci mais itam si ñëwoon ay sart yoo xamante ne it moom la ñuy doxee ci li nga xamante ne si ne moom moo di mouvement boobu ñu di ko wax force F24 bi nga xamante ne si ni daal nañ koy taxawaloon waaye itam ki nekkoon ci bopp bi moom bokk ci benn parti mais itam dafa bokk ci nga xamante ne si ni moom moo di société civile bi loolu nag nekkoon loo xam si ne dañoo tegoon ay sart yoo xamante ne si ni moom moo waral bi nga xamante ne si ni kat daal nañuy annoncé ne jaloog bi nga xamante ne si ne war nañ koo amal kii di Khalifa Babacar Sall ak taxawu Dakar bi nga xamante ne si moom moo nekk ci bopp bi ñoom kat dañoo pare pour fekk si président Macky Sall ci dialogue boobu loolu bokk na ci li tax mu waral ay coow yu bëree bëri ndaxte kat ñi nga xamante ne si ne kat ñoom ñoo di mouvement F24 ñoom seen sart yi dafa bokk ci yi nga xamante ne si Euh, définir nañ ko moo di boobu la jalabkat ñoom ñëpp kat ñi nga xamante ne si ne daal dinañuy wu ci mouvement boobu ñu di ñuy woowee F24 dañuy dëppoo ci décision yi nga xamante ne si moom la ñu jël naka noonu tamit lépp loo xamante ne it bépp parti mi ngi koy décider da ciy dëppoog li nga xamante ne si moom moo di F24 boobu noonu ndaxte kat dañoo wax ni dañ koy uh, kii li nga xamante ne si moom moo di euh, seeni objectif naka noonu it moom moo di jàkkaarlook ki nga xam si ne moo di président Macky Sall loolee waraloon ñu daal di signé woon ay charte yoo xamante ne si ne bépp décision boo xam dañ koy jël loo xamante ne si ne day xeex doxalinu régime bi nga xam si ne moo fi nekk dañ ciy dëppoo ba noppi naka noonu tamit képp koo xamante ne si ne day jël benn initiative da ciy dëppoog ñi nga xamante ne si ne ñoom la bokkal boobu la mouvement léegi nag li waral mu indee coow moom moo di dañoo dégg. ñi nga xamante ne ñoom ñoo di euh, mouvement F24 bokkoon na ci seen sart yi moom moo di ginnaaw bi nga xamante ne seen ne kii di président Macky sàll doon na wax ay waxi dialogue ñoom kat dañoo waxoon ne man mën nañoo dem ci dialogue ak Macky Sall mais itam day tegu ci li nga xamante ne si moo di ay conditions yoo xamante ne si ne conditions yu leer la bi ci moo di ñi nga ne si ne jàpp nañ leen te jàpp jàpp nañu teguwut ci yoon ñu daal di leen di bàyyi ñu tolloon ci 500 personnes yoo xamante ne si ne jàpp nañ ne dañ leen a teg loxo ci ay manifestations yoo xamante ne si ne manifestation pacifique la waaye itam ñu jàpp ñoo xamante ne si ne dañoo jàpp ne dañ leen di jàpp ñu nekk ay détenus politiques yoo xamante ne si ne ay règlement de compte moo waral ñu jàpp leen leen naka noonu tamit kii di président Macky Sall daal di àddu ci li nga xam si ne constitution bi bindoon na ko muy nul ne peut exercer plus de deux bi nga xamante ne si ne kii di président Macky Sall daal na koy campagner woon di euh, mille 2019 bi nga xamante ne si ne kat ñu ngi koy joxaat lii di élection élection présidentielle du 2019 bi nga xamante ne si ne ñu ngi koy joxaat lii di nguur gi loolu tamit bokkoon ci li nga xamante ne si ne ñii di mouvement F24 bokkoon na ci saat yi nga xam si ne tegoon nañ ko ngir kat mën a toog ak kii di président Macky Sall dialogue yooyu yëpp na ñuy wax ne bu fekkente ne kii di président Macky Sall d'accord nag dellu ginnaaw ci yooyu noonu naka noonu tamit ñi nga xamante ne si ne daf leen a jàpp ñenn ñi mu gàllankoor lañu ci justice ba moom moo di élection yi présidentielles yi duñ ci participer pen yoon loolu nag ñu waxoon ne dañ koy dindi bu ci mel ne Khalifa Ababacar Sall waaye itam bu ci mel bu Karim wadd ak Ousmane Sonko mi nga xamante ne si ne eh, jàpp nañ ne ci jamono ji lii di nguuru Sénégal ci tànk yooyu la nekk lii bokkoon na ci li nga xamante ne si moom la mouvement F24 dëppoo woon ak ñi nga xamante ne si ne adhéré woon nañ ci ñëpp ginnaaw ba nag ñu gis ne kat ñii di taxawu Dakar bu Khalifa Ababacar Sall. kii di président Macky Sall jamono yee ñu génn bi nga xamante ne si ne daal dinay def ab benn euh, émission boo xam si ne amaloon na ko kii di Assane Gueye dafa waxoon kàddu boo xamante ne si ne ba tey jeunes yi moom la ñuy topp source bi mais itam mu indi leen ci ba won leen ne kii di xalifa Ababacar Sall ak ñi mu àndal pare nañ pour dem ci li nga xamante ne si ne moo di dialogue bi mais itam ak Idriss Idriss Seck mais Idriss Seck ku nekk mën naa comprendre ne moom euh, bi nga xamante ne si élection présidentielle yu 2019 yi jàll na ba jamono ji mi ngi ci régime bi kon moom bokk ci li nga xamante ne moo di mouvement F24 mais li nga xamante ne si ñu ngi koy wax dafa concerné li nga xamante ne si ne moom moo di taxawu dakaar waaye itam. Euh, taxawu Sénégal ak kii di xalifa Ababacar Sall mi nga xam ne jamono ji mën nañoo wax ne ku jege président Ousmane Sonko la mais itam ku bokk ci yeewu askan wi la kon loolu day laaj sénégalais yi def ci ab taxaw seetlu lan moo indi kii di xalifa Ababacar Sall daal di wuuteeg ñi nga xam seen ñoo di F24 ak benn décision ndax kat F24 ñoom seen objectif nekkutoon. kii di président Macky Sall woote dialogue ñu wuyu ko saa kan ñu daal di teg ay conditions loolu nag moo waral lii di euh, sénégalais yi di ci posé wu ay questions questions yooyu nag maanaam nekk na loo xamante ne si ne daanaka mën nañoo wax ni it mën wërta jaaxal kenn ndaxte bu ñu waxee ñi nga xamante ne si ne kat ñoom ñoo di libéraux yi ci jamono ji wala ñuy wax ñi nga xam si ne ñoo di socialistes yi mën nañoo wax ne dañoo nekk benn famille boo xamante ne si ne jamono ji ñu bëree bëri réeroowuñ ci ñoom léegi nag question bi nit ñi di laaj moom moo di est-ce que kii di Khalifa Ababacar Sall ak président Macky Sall réeroo nañ loolu euh, peut-être ci kanam tuuti lii di réalité politique mën na ko wone mais jamono ji ñuy wax ak yéen liñ mën a wax moo di famille socialiste yi ak libéraux yi jamono ji ñi ngi waxtaan di négocier nuñ mën a demee kat ba euh, participer waat ci élection ndaxte ba jamono ji ñuy wax ak yéen ñoom gëm-gëm gi ñu am ak mentalité bi nga xam si ne yor nañ ko ak idéologie bi nga xam si ne ñu ngi koy doxee moom moo di di wéy di gouverner Sénégal comme ni nga xamante ne si ne que noonu la ko Abdoulaye Wade daan yàgg a gëmloo ñi nga xamante ne si ne ñoom la àndaloon moo waral ñii di PDS depuis élection yi présidentielles yu 2019 yi ba jamono ji ci négocier lañ nekk ak ci li nga xamante ne seen moo di waxtaan mais itam bu ñu demee ba ñi nga xam si ñoo di taxawu Dakar taxawu Sénégal bu Khalifa Ababacar Sall bëgg leen a fekk si ci loolu loolu kat day laaj ay questions yu bëree bëri naka noonu tamit confiance bi nga xamante ne si ne ñu bëree bëri amoon nañ ko ci ñi nga xamante ne si ñoom ñoo di taxawu Sénégal. naka noonu tamit dañoo gis na it ñi nga xamante ne si ne ñoom ñoo di waaye Yewwi Askan Wi dafa am ay objectifs yoo xamante ne si ne moom lañ amoon naka noonu it ñu gëm la woon sénégalais yi ne ñoom kat dafa am benn projet boo xamante ne si moom lañ am ba gëmloo Sénégalais yi te tamit ñoom bokkuñu ñi nga xam si ne ñoom ñoo fi nekk mais itam lu waaye mën a waxee da nga xam ne lii di réewum Sénégal li ko tardeel moom moo di ay négociation mais itam ak ay waxtaan yoo xamante ne si buñ koy def Sénégalais yi duñ ci yëg benn yoon looloo waral jamono bu nekk lii di réewum Sénégal di nekk ci ay loxo yoo xamante ne si ne peut-être bokkut ak loxo yi nga xam si ne moom la Sénégal bëgg ñu nekk ci mais itam li nga xamante ne si ne it kii di Khalifa Ababacar Sall peut-être bu fekkente ne niñ koy waxee noonu la demee loolu kat bokk na ci li nga xamante ne si ne bu ko defee bis dana ñëw comme niñ koy waxee ak réalité politique moom moo di mën nañoo bëgg xeexaat mais bu boobaa day fekk mu weesu ndaxte. président euh, kii di Khalifa Ababacar sàll saa bu xamante ne si dem na ci boobu la jëlagu moo di kii di président Macky Sall am na forom bu mën a jaar ba diviser waat li nga xamante ne si ne moom moo di opposition bi ndax kat lu waay mën a waxit da nga xam ne kii di Khalifa Ababacar Sall bu demee ci dialogue bi ba dëppoo kii di président Macky Sall ci li nga xamante ne si kat Euh, kii di Macky Sall woolu na ko ci est que kon yeewi askan wi Macky Sall dafa mën a jaaree diffuser ko ndax loolu kat mën nañoo wax ne bokkut ci principe bi nga xamante ne si ne moom la yeewi askan wi doxee wala lenn ci leader yi coalition yeewi askan wi naka noonu tamit ci F24 bi nga xamante ne si ne euh, kii nañ ko ba tuddee ko benn force vive boo xam si ne jàpp nañ ne kat mën naa raw li nga xamante ne moo di M23 bi nga xam si ne moo fi nekkoon 2011 jàkkaarloo ki nga xam si moo di président de la république Abdoulaye Wade lii nag moo nekkoon li nga xamante ne si nag doon nañ ko indi kam jàngat di wax na ngeen abonné te activé ko les notification bi pour bépp vidéo bu dugal ngeen bokk ñi koy njëkk a jot